plan B bi leen waxoon daal gars yi ren dañ ko sànni may aggi bu mu am benn plan B bi ñu làkk muy Madické Niang mu am ñu ko gëm ñu ko gëmu man bi nga xam ne nekk ma si biir PDS nekk à distance loolu mooy sama version que euh, ni ko xatee Abdoulaye dina ñibbi si tey la ñuy wax te dina def déclaration nañ ko déglu ba xam waaye de ba àddina tukki du réeroo ak Madické Niang waaw même su demoon ba bañ ko bañ a wax publiquement jàppale ni Madické Niang si xolam dina xam ne vraiment Madické est un vrai guerrier qui a fait une campagne en un laps de temps et qui a dépensé énormément énormément d'argent. Man, m'a dépensé avec c'est là que vraiment parce qu'il a dépensé énormément d'argent. Et puis, euh, avec cœur, la avec cœur, il était positif. Yalla il est positif. Et que Ablaye Wad Bima parce qu'Ablaye Wade c'est comme si c'est mon grand-père, quoi. Ablaye Wad Bima man il a le film. Et, puis, il, il a plusieurs cartes à jouer. Il y a son fils, qui est toujours au Qatar, bëgg na mu ñibbisi proprement pour mun a participer si beneen élection lu muy wax nii affaire yu muy wax yëpp day xumb rek maintenant ça a porté ses fruits parce que yëngal na àddina bi. il est Abdoulaye Wade il est très lucide mag la mag buur la comme li ñuy wax il a presque cent ans mais il jouit de toutes ses facultés mentales et c'est négocier te xam na naka la ñuy yëngalee dëkk ndax yëngal na ko da koy yëngal yëngal yëngal ba ñu fàtte sax euh, ni ka xatee euh, Madické ñaar rek la ñuy fàttewul Madické ñaar rek la ñuy fàttewul parce que bi kii yëngalee Madické Niang dafa ñëw rek reetaanloo Sénégalais yi et puis ça a calmé les gens quoi ça a enlevé beaucoup de stress et on en avait besoin maintenant il va rentrer ce soir on va l'écouter on va l'écouter toujours est-il que suñu papa la suñu mam la te lu mu def baax na le plan B du Parti démocrate sénégalais. Quelle que soit la manière dont il déroule le film, mais quelque part quand même, euh, c'est son pion. Quelque part, c'est toujours son, député. Je le député d'Ablaï Wadbolig. Wow, ah, nous sommes préparés pour parler bon toute de façon nous sommes caravane tout le temps des proximités tout le temps au niveau de Dakar de Rifisque, de et de Pékin. nous avons proximité. et puis euh, pour Dakar pour répondre correctement à votre question Dakar Dakar les gens l'attendent les gens l'attendent parce que partout ils passent des toj rajaxe des askan wi lépp lu mu am bokk ko gars parce que terminer wul sa phrase oui waaw ndax lu am bokk ko ñëpp coow li waaw dina toj dina rajaxe dina séddale waaw ndeysaan dina séddale vraiment générosité am boobu gisuguma ku ab Ablaye wat Ablaye wat est aussi généreux que Madické Niang Ablaye Wade ak Madické Niang kiif si côté générosité Bidlari. waaw il accompagne quoi il accompagne euh, financièrement nu ngi koy defee nu noonu la ko Ablaye wat di defee waaw noonu la ko Ablaye Wade defee loolu Macky Sall mënu ko xam ko sax.